professeur yi fa nekk ci privé yi instant bi nii te nga xamante si ni master la ñu am dañ leen a la ñu fa nekk instant bi privé yi nga war a yër suba dem boor privé ne université ko amul xëy dama ne nga li nga grand li ngay wax ba nit ñi teguñu fitna pour dàqalu te loolu noonu xam nga lan mooy problème xam nga sànq nee nga ay xale ñoo fa jàng xam nga mën jàngal waa IAM ay ay ndaw ñoo fa nekk di jàng di sàkku xam-xam mais instant bi ak geste bi xam nga la lañ jàngal pliez-vous soumettez-vous ayez peur du des des décideurs parce que instant bi ñi ñi fa nekk di jàng tey ku ci génn bu ëllëgee dootoo am fit dootoo am sañ-sañ dootoo ñeme def lenn loo xam ne si ni mbiru bravoure lay doon te rek nangoo nekk benn. benn benn benn ça n'a absolument rien à voir. non damay expliquer tey jii on parle de pédagogie xam nga tey jii ku nekk di jàng mhm. nga gis ne benn professeur boo xamante si ni il ne s'est pas plié. il ne s'est pas soumis. ñoom ni ñu ko bëggee woon. mais il a trahi. non non mais il a trahi il ne s'est pas pris. xam nga xam nga on lui avait demandé de plier boobu lan lañ koy jàngal. dañ koy jàngal que bu fekkee que dans cette société da ngaa wane brave xam nga tey tey jii bu dee bu nekkoon dans dans pays sérieux ku mel capitaine Touré dañ koy. dañ koy choyer dañ koy. choyer comment ça. comprendre nga <laughs> léegi. mais quand même qu'est-ce enfants. de divulguer des secrets d'enquête. ban secret d'enquête. qu'est-ce que tu es en train d'apprendre ces enfants là capitaine Touré une dossier un dossier même tuuti même tuuti un dossier qui est en instruction capitaine Touré dans ce dossier xam nga lu mu fekk ndaw soo xamante se nii dañ ko teg fitna ba benn doomam dee ci seex yi mu amoon ñu teg ko fitna mu téye benn doomam bu matul teg ko ci dëndam te doom yi noonu kase lay amee pour mën a continuer dund ñu dégg procureur bi ne jëlee leen ko indi leen ko garde à vue téye leen ko ñu bëggoon ko téye capitaine Touré bu jéewul woon sa rôle boobu de d'un être humain rempli d'humanisme quelqu'un bu bëri yërmande amaana sax doomu doomu Ndeye Khady Ndiaye bi keneen ki ci des day dee na ndaw si stress boobu muy du sax moom mën na ko rey moom mais dama ni capitaine Touré loolu mu fekkee acharné boobu sachant li nekk ci ci ci ci ci PV bi parce que moo moo ko doon auditionné capitaine Touré fekkee. machination boobu noonu moom moo xam capitaine Touré moom moo doon auditionné. moom moo auditionné pour dire il a fait combien de PV dans sa vie capitaine Touré dafa il est il est assis face à des gens yu indi benn complot lui en tant que un inspecteur boo xam te ni yàgg na régler ay ay PV yàgg na fekk ay cas mu lire la lecture de la situation mais le capitaine Touré capitaine Touré bi nii dafa fekke la situation comment elle est présentée capitaine Touré jël si ay responsabilités parce que capitaine Touré du dof yàgg na def liggéey boobu capitaine Touré fu mu nekk yépp lañ ko doon wax laaw la cat parce capitaine Touré boobu noonu. xamuloo ko dara yaa ngi doog a capitaine Touré. mais non je ne dis pas qu'il n'a mais j'ai yaa ngi doog a capitaine Touré fi mu jaar ak réputation bu fekkoon que am na benn takk-takk bu mu dama ñaan professionnel waxuma ba léegi dafa wax ni mu takk-takk heureusement mu am benn personne boo xamante ni ragal na yàlla gëm na réewam respecté na serment kon ñeneen di ragaluñu yàlla yàlla raw ni dans une enquête a dix personnes ah cette enquête là moom lañ ko confié woon euh, PV bi mu def les auditions moom lañ ko confié woon mu génn gendarmerie moom lañ ñu mu dem toog ci plateau télé il divulgue les secrets de l' ban secret de l' bien sûr ban secret de l'enquête c'est pas c'est pas c'est pas capitaine Touré qui a dit que Adji Sarr daf ko ne wax lii ak lii ak lii c'est pas capitaine Touré qui a dit que Ndeye Khady Sarr daf ko wax lii ak lii est-ce qu'il a le droit de sortir de donner ces informations là est est-ce que dafa toog ci plateau dafa fekk une liquidation loo xamante si nii tegewul yoon il a ce droit dama la capitaine Touré lu mu mënta wax ci lu si gëm la nekk bu noppi woon sa conscience dootu ko may mu nelaw. parce que maintenant tu parles de liquidation tu tu de liquidation maintenant nañ dem liquidation ak leneen n'est-ce pas Ousmane Sonko nee na nañ dem procès. waaw dé non attends attends même tuuti balaa ñëw si procès bi euh, may ma ma poser euh, question euh, nit dof par rapport ak voilà vous parlez d'acharnement sur la personne de capi du capitaine Touré ak ki nga xam ne mooy Ndeye Khady mais ki nga xam ne mooy victime la mun nañ ko wooyee loolu Adji Sarr gis nañ ne yéen ñi nga xam ne yéen a jege ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko dafa am benn euh, message dénigrant boo xam ne ba mbir mi amee ba tey da koy def da ngeen koy def euh, sur sa personne gis neen récemment euh, ki ku mel ni comme mola Mollah Morgun génn di def ay tuuma moi je vais même pas dire de des révélations si kaw ki nga xam ne mooy aji aji sa diw tëddee na ko diw tëddee na ko te cette fille non seulement c'est une jeune femme mais euh, aussi dafa am li nga xam ne mooy présomption euh, d'innocence euh, est-ce d'innocence am est-ce que dans cette affaire aussi waroon neen yegg ak fii ki nga xam ne mooy la victime aussi ah xam nga aussi mënuñu mënuñu ko présenter. comme on n'a jamais entendu. non non non aussi Ousmane Sonko jël baat bu ñaaw teg ko kii nga xam ne si kaw. non non loolu du rôle am moom président Ousmane Sonko du moom mooy maire maire maire. kon yéen seen rôle mooy saaga mooy saaga mooy saaga Adji Sarr mooy traité que de prostituée si réew lañ bokk mooy traité que de prostituée dañuy xalaat dama ne ñun les faits la wax. les faits mooy lan da fekke fee lay wax yi ñu lay wax fee yi ñu fenam fekke naa mu ne dafa ëmb non loolu du fee loolu du fee loolu du fee non ah da ngay non loolu du fee ëmb xam nga da ngay dañ lay jox non dañ lay jox non dañ lay jox définition fee xam nga sooy wax ci fee non wuy ma loolu la def dafa non dama ne dama ne si on parle des faits suñu xam nga luy xam nga xam nga luy fee waaw defal ndànk ba xam nga luy fee mooy Ousmane Sonko dem na ca ca ca ca ca salon de massage ba. Ousmane Sonko re xam na Adji Sarr n'est-ce pas Ousmane Sonko da doon fréquenter salon de massage loolu mooy ay fait. mais su weesoo loolu su weesoo loolu su weesoo loolu. amul leneen lu ci nit di wax lu ci nit di wax day épilogué. waaw léegi man dama lay wax. lu ci nit di wax waaw déglu ma expliqué la. non xaaral xaaral ma wax si ndaw si damaa tant que sénégalais. allez-y damaa toog di ko seetaan muy fekk oui allez-y non dama ko doon dama ko doon waxal fay rek mooy lan quoi lan mooy fay exactement waaw dama lay wuyu fay mais moo xam na lan mooy fay non xamul luy fay des des jeux de mots Adama ah, ah, non non ah, non li muy def mais il essaie de leurrer nit ñi parce que amul argument grand bi xam naa ko mais dama laa bëgg xamal ka ni dañ maa laaj mën ngay waxal de mën ngay mën ngay débattre de quand tu me coupes quand tu veux pas parler tu ne me dis pas tu amoo argument quand même arrête mën ngay waxal de lan xam ko maa ngi débattre nañ plusieurs fois da nga maa laaj ndaw si dama laa la lan mooy fee ndaw si dafa jàkkaarloog Sénégal lan mooy fee waaw wuy ma ndaw si dafa jàkkaarloog Sénégalais yi loolu un fait la cest à déjà le fait d'aller dans une télé muuru di wax xam nga loolu c'est un fait li ngay wax loolu lépp contenu bi c'est ça qui est un fait hmm. parce que da ngaa dem ci ab télé toog muuru takk say casque di wax mu ne ëmb mu ne Sénégalais yi xam nga fen boobu laa lay wax waaw garde la ko commencé waaw ci PV yi hmm. fen contredire boppam plusieurs fois hmm. ñu dem ba ci li gën a garaaw fi réew toll ndaw si toog mais attends ndaw si toog ma ma dolli la ma dolli la ah. Ousmane Sonko moo taxaw ne ko moo taxaw ne dafa feebar dañ ko doon diwal grésu grésu bi grésu yeew après mu taxaw ne dara dara dalu ko donc suy fen di am ñoom ñaar ñëpp dañuy fen Adji dafa fen Ousmane Sonko dafa fen non mais dafa fen fen la ah, xam nga loolu loolu la ko pour ma tekkee la ko mu yomb. Hmm. président Ousmane Sonko. Hmm. gis am na comme ni ma ko waxee keroog am na benn benn benn hmm. bi mu dégg ni président Ousmane Sonko di wax ay antécédents de de ci kii thérapeutique yi euh, euh, cabine thérapeutique yi dafaa jubali dem. na fa dem mu ne ñëw nañ fa ñëw na fa bi mu ñëw dañ koy jox mais les tarifs étaient trop chers il trouve que on l'a on l'a on relancé pour wàññil ko mais finalement xam naa il a trouvé trop cher journaliste boobu dem def métier wu journaliste donc. Euh, le fait que moom. mu am ay je refuse pas ça. non non d' doo ko mën a refuser parce que léegi loolu daal di am. léegi li ma la dama ko gëm ci kàddoom de dafa wax ma gëm ko ci kàddoom. non dama ni mu la neexee même journaliste bi la dafa dem defi moom l' investigation. Hmm. est ce que dégg nga li ma la wax loolu kooku dem def liggéeyam dem xool vérifier li mu war a vérifier. Hmm. xam nga loolu fee la Ousmane Sonko ñëw di expliquer comme quoi que ni. par rapport ay antécédents sanitaires euh, mais Adji Sarr Adji Sarr dans sa conférence de presse taxaw ne ne Ousmane Sonko waat ni ñoom ñaar mos ñoo seq dara wuy ma tamit ay fee la mais là on parle de viol fii Sénégal mais c'est quoi lan mais Adama lan mooy définition bi débat bi bu ko yóbbu foofu lan mooy définition bi c'est nit ñi ki leen a amee dara parce que xam na grave ce dossier est indéfendable c'est quoi c'est quoi le viol mais Adama barki Dembo Ndiaye tëj nañ fi un parce que dafa def attouchement sexuel. loolu viol la. mais la euh, fille est pour dire que daf ma violé. Adama lan mooy viol. Adama Ousmane Sonko. rapport sexuel sans consentement viol la. Adama. caga bi ngay tëddee chaque jour. mën nga xëy suba mu ne dañ ma violé. Adama Ousmane Sonko euh, dañ koo viol. oui accusé wu ko couché avec Adji Sarr. et à non, ma attends, connaissance loolu c'est pas interdit attends, au Sénégal. Attends, donc bul mélanger aussi xel sénégalais ñu def continuer par rapport man dama bëgg ñu wax par rapport ak yéen euh, voilà campagne de dénigrement bi nga xam ne ñu ngi si euh, kaw ki nga xam ne mooy Adji Sarr. waaw balaa may àggal si wax ñu ah, laa ah. ko bëgg a wax bi président Ousmane wax dara daluma yow yaa gën a xam li mu bëgg a wax. li mu wax weesuwul n'a rien à avec euh, ses antécédents de de.